bàyyi ñu commencé ko rek ak euh, li nga xam ne moom mooy 39 députés yi nga xam ni euh, wala boog 39 euh, def nañu recours député ca conseil constitutionnel ngir daal di neenal décision wala loi bii nga xam ne moom la assemblée woote woon lu jëm ci puusal président Macky Sall élection yi. waaw loolu day son yi bu am na solo bu fekkee ne ñoom jàpp nañ ni lii xew te jàpp ne du yoon am na ñu langaama ci dara ba jàllale ko. ni nii fii lañ koy aw te ñoom it yoon may na leen ñu langaamu ci loola ba lonkarti yi li nga xamante ni loolu la ñuy langaamu woon loolu moom mënuñu du rafetlu ko te di toog di diglu rek ba pare continuer di def action yi nga xamante ni mooy neenal lii nga xamante ni am na ndax it am na ñoo xamante ni noonu am na ñoo xam ne dañ lay xëcc ci teereeb nañ def ay recours nañ déposé nañ nangam nangam bu ko boobaa yeneen action yi nga waroon def da ko jël tege ne nee di xaari recours yi ak àtte bi ak ramwaay waaw léegi nag au lieu que léeg ñi ñi war a ñi war a euh, yore loola dañu leen koy bàyyee ñoom ñu koy def seen yoon bañ saa nekk ñi nga xamante ni ne war nañoo yore yorewaat yeneen ñu mën a yor ñoom ñu dem yori yooyee moo xam ñuy wax la moo xam ñuy jëf la moo xam ñuy maye la moo xam lu ñu mën a def kenn ku nekk li nga war a def nga def ko mais bu fekkee ne tey jii nee nañu ñii kat wate nañ lii jàll na am na ñu ñëw nii danañ dem déposé ji pour loolu daal di niin nii niil buñ taxaw di xaar ñooñu ndax boo leen leen xaaree rek déposé répondre bi mën naa yàgg recours mën naa amaat recours na dugal na recours dugal na naa dugal na naa ba réew mi du xam fu mu jëm ndax réew mi boo dee xool sony bu mm. ñetti at yi jàll yëpp ay recours ak yàlla mu yoon lañ doxee réew mi mm-hmm. def nañ recours def nañ di dem nañ fii dem nañ conseil def nañ nangam foofu la réew mi doxee ba egsi mm-hmm. moo tax sax li ñu waroon a président Macky Sall yi mu waroon a énigré yu si bëri mujj ko man a immigré yi mu waroon a toppatoo mujj ko toppatoo gis nga ko ba tey jii luyaas beeg yi sa topp ak yëpp jafe-jafe yi gën a bari ndax ñu toppoon ay recours ak ay nang kon ñiy def recours ak ñiy déposé nañ leen bàyyi ñu déposé ñu nit lu mën a def pour président Macky Sall ñu may ko loxo pour mu delluwaat ginnaaw ci li nga xam ne def na da koy def ñu waaw nañ ko may loxo ndax ne nii donte dem nañu may ko loxo mu génnaat taxaw mën a wax ne dellutu naa si ginnaaw rek yomb na moo gën ñu koy bàyyi hmm? dañ koy tàllal loxo rek ni ko ñëwal defaat déclaration ok weesut mais fi ne bu ñu nee ceele rek pour moom dégg naa kilifa du deltu gannaaw de. ah kay. Hmm. waaw du yi ma joxoon démb ma yóbbu ko victime di net lépp leeral na ko si. ah waaw ah. Ah, waxoon na ko ci Ablaye Wade. Ah. Hmm. Alaaji. waaw 39 députés yi de ñu ngi jóge ci diggante wàllu. wala boog ñuy diggante yooyu askan wi ak euh, ak waa wàllu sax defe naa ni non non du wàllu kay kii laa bëgg a wax taxaw. ñoom ñoo jóg daal ngir euh, def ab recours ca conseil constitutionnel. <laughs> waaw. xam nga loolu ñu def moom dafa fekk ne yoon may na leen ko donc def nañ li nga xamante ni moom la ñu war a def nga xam ne bii am nañ ci yaakaar ni conseil constitutionnel war na cee mën a wax waaw parce que tamit euh, lii nga xam ne bii mooy li am ni muy toxal élection yi soñ bu dafa wartane hmm. te lu wartane waruñu ko amal ci réew mi li gën a jekkati mooy dajale say député ngir ñu dolli la. waaw loolu jekkul. kaa leen dolli. leen ma. Hmm. comprendre nga. Mhm. loolu ci boppam moo moom la nit mënta layal. comprendre nga. te loolu mooy li nga xamante ne bi moom la sénégalais yépp gis. Mhm. koo xam ni jeexal na waaye. ñu créer soi-disant problème boo xamante ni bii problème bi ñu créer ñaar la dal kenn ki ñu ne ko yow moom garde à vue lañ lay yóbbu jàppoon ko keneen ki ñu ne nañ lijjanti ji ay problème kon kooku ban problème kooku dañ ko waroon a wëri keneen ki mais kooku am na sañ-sañu moom ne soupçon maanaam njortu na. Mm-hmm. ni lii yëf yi demee nii am na ak ger gu ci am njort depuis quand ñuy tuxal ay élection ci njort nañ njort comprendre mhm. maanaam liy bëgg-bëgg yi yëpp mooy li nit ñi njortoon mooy li am parce que gisoon nañ ñi kiikat fu mu jafandu lay wër mhm. nit ñi di daw jafandu gi mhm. roof nañ dara ca sena ñu gis ni ah boo defu ndànk dana ci jafandu de plainte ba ñu rocc waxat ko maanaam fépp fu nit ñi gis ni bon lii kat njort nañ ñi mën na caa jafandu ñu kii ko mhm. ndekete créé nañ seen yeneen i njort mhm. buñ defee ñu daal de ñëw nañ njortu nañ ñi soupçonné nañ maanaam njortu nañ ñi am na loo xamante ne bi mu ngi xew mhm. ñu ne kon boog nañu loolu <coughs> comprendre donc nag député yi li nga xamante ni moom lañ def nii lu am solo la xam nga li doy waat mooy ñu ne julli gi de waxtu wii la. waaw ñuy julli. waaye imaam bi ne moom man imaam bi moom joxe woon ngànt ne moom moom du julli ji. waaye daal ne kii kat am na imaam boo xamante ne bii moom mooy ñëw eh, moom la délégué. ñu dem ba ci waxtu waaw ginnaaw daal seet nañ ba seet waaye kii yére bi ñu ko yawal dafa yëmbax wala jotut nañ tuxal waxtu yi. waaw mënta ndax imaam yëre yi parewut ndax yëre kii bi parewut way laa ki ñ ko doon nattal daal dafa mel ni mesure bi jotu ko dafa yëmbax ci moom faaw ñu seetaat keneen koo xam ne daal ca moom lay gën a jeet ñoom ñu war a dem tànni jiwaat ñaari emprunté euh, tailleur bi dañ doon xeex waaw kon daal jàmm amul ci koñ léegi tu waxtu wi moom nañ ko puus ndax jàmm waxtu la dañ koy war a respecté ca waxtu wa loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li am addina bi yëpp loolu lañ ñuy ŋawti ŋawtee ci jamono jiñ toll nii. Mm-hmm. boo dee sénégalais da ngay ruus sax taxaw ne ab sénégalais la. Mm-hmm. fi mu toll nii tey peut-être ñun ñu ngi ci biir réew mais am na suñu mbokk yoo xamante ne bi dañ daan vanté wu ak yeneen yi nekk wan leen ne leen ñun suñu réew wute na ak réew yi parce que nii la doxee dañoo yàgg a voté dañoo yàgg respecte ki yu bari yi ngay gis ci Afrique amut nga ko daan tiitaroo mu doon ab sax xëy nañ màbb ko. Mm-hmm. comprendre nga gàcca la quoi li nga xamante ni bi moo dal ci réew mi nii nit ñi mënatuñoo siggi quoi. ndeysaan donc ñu ngi. ñun la ñuy waxtaanee fépp ci ñun la ñuy waxtaanee fépp ci àddina bi. Mm-hmm. te des fois ndeysaan ñu tuddee ñu nag. Euh, adressé ñu lu doy waar sax. non fi mu toll nii ñun la ñuy waxtaanee lépp ci àddina bi. donc nag loolu mooy li nga xamante ni bii mooy mbir mi. d'accord yàlla na yàlla <coughs> delloo seen xel bañ mën a amal élection yi ci waxtu wa. jaajëf Ismaïla Madior Fall mi ñu dénkoon justice su euh, Sénégal wax na ci wàllu recours yi nga xam ne nag toujours dañ koy jël di ko jàng-jàngee di ko yóbbu ci conseil constitutionnel euh, ñoom nag nee nañ saa su fa demee daal li mu mën a def moom ca conseil ba mooy dañuy déclarer incompétent loolu la ñuy déclarer euh, ca wax ja nag ma ngi ko waxee ca France 24 ca loolu nag la ko nag ay élève am moom mm, Ismaïla tontu ni ko nag wax dëgg yàlla ñun du loolu yi nga ñu jàngaloon la ñu jàngoon daal ca loolu bokkul ak la ñu jàngal ndek yow Ismaïla mii waxoon nañu itamit muy wax ju am solo ju ñu war a bàyyi xel déglu ko waxoon nañu ni législatif wala local képp la ñu mën a dàq mais jamais ab président mën a dàq ay élection yoo nga xam ne mooy présidentielle ñu déglu ci aslëf te dellu timing actuel avec le démarrage du dialogue et la situation peut-on envisager un report de l'élection présidentielle c'est pas envisagé jusque-là premièrement deuxièmement vous savez la date de l'élection présidentielle dans la constitution hmm. que c'est fixé Donc, euh, euh, au Sénégal, il est facile de reporter des élections locales, territoriales maintenant on dit. Mm. Il est facile de reporter des élections législatives. On peut, par une loi, euh, reporter des élections législatives. C'est arrivé Mais les élections présidentielles, la Constitution. Euh, troisième dimanche du, mois de février. on ne peut pas reporter l'élection présidentielle au Sénégal. juridiquement. Ismaël Majorfal, merci. mi ngi noonu juridiquement ca la ko teg ñoom moom lañ jàngi woon ñoo am xam-xam boobule yal na ko yàlla fay moom Ismaïla loolu la teg ci loxol Sénégalais yi nee na kenn mënu koo dàq amul benn président bu mën a dàq élection présidentielle aywa nee na euh, conseil ba moom recours ba fa dem ñoom dañuy